ñu koy euh, di ñu teewlu ci 99 point 0 wala sax ci page youtube bu Walfadjri di leen jaajëfal rek ñoom euh, ñëpp bu ñu déggee seen tur bu ñu ko déggul nañu xam ni euh, suñu xel a ngi ci ñoom di jaajëfal bu bi nga xamante ni ñu koy ànd ak ñun alors ñu commencé ak mooy agenda wu président de la république Bassirou Diomaye Diakhar fay ñi ngi ko doon wax démb démb finalement dem na Touba dem na Tivaouane ki nga xamante ni ñu ngi ko doon présenté comme un salafiste xam xamante ni wahabiya la euh, koo xamante ni gëmul tarixa euh, <laughs> def na euh, quand même mieux que ñi nga xamante ne entre guillemets dañ leen di woowee ay taalibe ku ci mel ni le président Macky Sall wala le président Abdoulaye Wade ñoom ñaa ñëpp seen premier dew ñu ko woon xalif généraux yi moom Bassirou Diomaye Faye bi ñuy wax que ni wahabiya la ak salafiste lu mu def de ñoom taalibe yi entre guillemets defuñu ko Pamata defe naa ne soo xoolee sur la vraiment ça a été euh, li nga xamante ne euh, moom la ñëpp saluer démb yaakaar naa ne les gens avaient euh, beaucoup de joie en eux dañu amoon euh, mbette bu bëri si ñoom te li ko sababoom mooy li nga xamante ne moom la ñu gis démb. Mhm. yaa ngi koy wax à l'entame kii di président Macky Sall bi ñu ko falee bi mu njëkkee mooy li nga xamante ne chaque jour dama ko yàgg di wax. Mhm. suñu roppalaan la jël dem jëli cahier de charge ba dem defi acte d'allégeance. Mhm. ki nga xamante ne tey jii caricaturé nañ ko on l'a traité de tous les noms bëgg ko sax génnee ci li nga xamante ne moom moo di diine gi mun nañ ko waxee noonu ndax liñ ko jàppee woon wax dëgg neex yàlla kenn xamul woon loolu ci réew Sénégal dégg nga sax ñoo xamante ne ci kër diine yu faree kàddu yu ñagas yoo xamante ne yëkkati nañ ko tegoon ko ci ñoom mais defe naa ne euh, mën daal euh, j'adore Diomaye mm-hmm. sans tambour ni trompette pas wax ji bëriwul te euh, wax na li mu leen di wax. tontu na. Mhm. tontu bu soft nag mais tontu bu dal. Mhm. xam nga tontu du wax jëf la. te da koo jëfee. Mhm. te euh, sobriété bi nga xamante ne moom la commencé di wane également Pape. foofu la njëkk a commencé. pour partir à il n'a pas voulu de tantamar. yow kañ nga yëg ne mi ngi dem Touba. démb pratiquement heures. waaw bi muy dem Touba amul dispositif cortège yu énorme yooyu di ko topp. Mhm. amul tout le gouvernement nga drainer leen. Mhm. amul toutes les directions nga drainer leen ne leen on à Touba. lu. restreint ba ci premier ministre bi sax demul. te li ñuy faral doon gis mooy le président. non dem accompagné après dinaa ñëw ci posture premier ministre bi. parce que premier ministre bi également. non ñi dañu dañu dégg mhm. parce que Diomaye est parti tey soo gisee Jean-Baptiste Tine nga gis ci wetam nga gis euh, ki nga xamante ne moom moo di El Malick Ndiaye ci wetam nga gis également Mary Teuw Niane ci wetam su weesoo ñett ministre yooyu kan nga gisaat ci wetam mm-hmm. service boo xamante ne daf ko réduire ba nga ne ma lii la et sans temps ni trompet avec beaucoup d'humilité avec beaucoup de simplicité mu dem ci kilifa yooyu jox leen nag war ma gu mat sëkk ci ñoo xamante ne ci waxtu boobu bañ leen naan simileen seen dàll dañoo yuuxu gëdd ñi leen ne woon simil sa dàll. moom il n'a pas attendu ça. solo sax kawas ay tànku neen la. il a commencé à l'entrée kër ki nga xamante ne moom moo di xalif bi Pape Matar ça veut tout dire. Mhm. ça veut tout dire. Mhm. et tey jii le premier ministre n'est pas parti encore une posture boo xamante ne man ça m'a vraiment moi j'étais euh, séduise je suis aux anges je veux dire di ñaan yàlla yàlla bu yaakaar tas quoi. parce que lii ñu commencé gis prémices yi vraiment ça augure quelque chose d'extraordinaire parce que tey jii le premier ministre mënoon na ci ànd Pamata la notoriété de Ousmane Sonko n'est plus à démontrer il peut faire de l'ombre à son président mais il l'a compris il s'éclipse il s'efface il laisse le président dérouler Bassirou Diomaye montre qu'il est le président de la nation. Mais Ousmane Sonko également est le, pré est, le, est le, euh, patron de l'État. Tu comprends mm -hmm. Qui c'est le président de la nation, mais Ousmane Sonko, c'est le patron de l'État. Il incarne l'État. nekk nii mm-hmm. La nation, quand on le dit, nous pouvons rassembler. Qui la saga qui yow qui ñooñu ngay boole fédéré mhm. te posture boobu la ki nga xamante ne moo di Bassirou Diomaye fay ñëw am tey jii donc on ne peut qu'être satisfait de li nga xamante ne moom la ñu gis tey jii te yaakaar naa ne tontu bi Pamata mhm. ça vaut mille mots mhm. et vraiment lii la ñuy xaar ci ay kilifa te defe naa ne jox nañu leçon de morale ay kilifa yoo xamante ne ñu ngi ci ëttu kër diine yi ay kilifa jamono mhm. ay kilifa diine tey jox nañ leen benn leçon de morale benn leçon d'humilité ak nit naka la war a comporté woo Pa Matar je pense pas que ne tey jii dinañu toog ba naan kii mi ngi empiété ci plate bande kii wala kii parce que gis nañu ne ils se sont euh, en donneur de leçons mhm. boo xamante ne tu ne pas la personne à te vouer un respect à un respect wala di suivre li nga xamante ne moom ngay def mais wan na leen ko tey sénégalais bu ci nekk da ngay xool ne ah ñi ñuy jiite ñi ñuy yarookat man waruma def leneen lu dul yaru effectivement kon tey ji vraiment man euh, ce duo là yàlla na leen suñu borom la fa cat te jàppale leen quoi bu fekkee ne nii la continuer non on on va voler très allah. am na solo bu baax a baax Mame Birame waaw Pamata maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay bu baax di nuyu ñi ma fekk ci studio bi la grande Awa Diop Ndiaye Georges Nessa euh, <laughs> ñoom ñoo nekkandoo bureau bi mu ngi ñëw keppaar gi néew moom mu ngi ñëw man may topp Moustapha rek di seetaan pour man keppaar gi commencé <laughs> donc euh, euh, heureux de retrouver le studio ça fait daanaka <laughs> plus de un mois yoo xamante ne ni dañ ma kidnappé ci salon d'honneur bi mhm. donc am mbégte dellu siwaat fii di nuyu les techniciens Omar Ndir ak le très grand DJ You. am na solo bu baax ba alors euh, Georges Nesta euh, ba tey euh, ñu des ci le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye visite bi nga xamante ni amal na ko ci ñaari. Euh, en tout cas euh, kër diine yu mag a mag euh, Tiwaawan nag Touba ci koo xamante ni dañ ko doon caricaturé ni gëmul ay mbirum kër diine ak yu ni mel tey comme nu ko aw Diop Ndiaye waxee réponse la quand même à certains ñi nga xamante ni ñu ngi doon wax wax yoo xamante ni tegul fenn di rectifier rek parce que Pierre Édouard fay mi ngi mooy xamal que ni Abdoulaye Wade est parti à Touba 48 heures avant sax wala après son élection avant même mi def prestation de serment waaw euh, effectivement Ablaye demoon na demoon na Touba sa première visite fa la ko defee woon. Mhm. Euh, acte bi nga xam ne nag moom la le président. mais ba pardon. mañ ko ba tey juumuma de. oui oui tout à fait parce que il était candidat il n'était pas encore président. waaw voilà. Mhm. donc euh, le président Diomaye acte bu baax la def bu bu bu noble. parce que boo boo fàttale ko un peu mhm. bu ñu leen waxee boobu sax Diomaye nekkul candidat. mais amoon na benn confrance de presse bu euh, kii defoon maître Ngagne dem ba oui di expliquer genre le projet. ba affaire boobu saabee avait en tollé. effectivement ñëpp di naan xam kon léegi yéen Sénégal yéen nga xam ne xamu leen di Pastef namm si dëkk bi. bu ñu jëlee nguur gi. voilà léegi c'est clair parce que maître dem Demba Touré mi nga xam ne moo yore la jeunesse. Mhm. wax na ko bon les gens les gens de Pastef en tout cas dégguma kenn si ñoom boo xam ne dafa jéem a démentir. Mhm. donc euh, affaire bi continuer ba ñu nee Diomaye lay candidat la gars yi continuer di soulever ce ce mot ce mot salafiste la yaakaar na am na benn émission bu ñu defoon fii ba mu ne nous sommes dans république laïque république laïque nag on ne dit président bi dafa war a bokk ci diine bi wala dafa war a bokk ci tarixa bële wala ceci ou cela loolu c'est peu importe mais nag ils ont posé en acte boo xam ne c'est un acte qui répond qui vaut presque mille mots ou bien mille interprétations oui. parce même nous, si nous sommes dans une république laïque, mais dem seeti par exemple les autorités religieuses les foyers religieux comme ça ta première visite loolu yàqul dara si en tout cas si république c'est vrai que da ngay gis ñi nga xam ne euh, dañ koy euh, dañ koy commencé di am ay yeneen interprétation dinaan non no c'était pas essentiel mais c'est très essentiel ces deux foyers religieux là c'est ne sont pas négligeables Touba ak Tivaouane ku wax dëgg rek xam nga ne en tout cas bokk nañ si les plus grands foyers religieux au Sénégal donc ñooñu nga dem seet leen nag officiellement réserve leen ta la primeur de ta de ta de ta visite loolu je pense pas mu am sénégalais boo xam ne loolu war na la naqari mm-hmm. au contraire ça prouve encore une fois que ñii nga ñi nga xam ne dañ leen doon caricaturer comme des salafistes ñi nga xam ne dañu waxoon ne gëmuñu ay taarixa mm-hmm. dañu ne bu ñëwee seen projet Pastef mooy loolu yëpp dootul am mm-hmm. ay gàmmu ak màggal dootul am il l'ont démenti sans pour autant faire des discours wala sans faire autant de faire des communiqués parce que yaakaar naa ne bu fekkoon ne loolu mooy seen projet que ñoom gëmuñu lii lii lii di ay taarixa que gëmuñu ay magal que gëmuñu ay gàmm mais là je crois que euh, la première visite de, de la première sortie du président Bassirou Diomaye Faye ñëw na pour démentir loolu yëpp mhm. et je crois que là euh, même plus à faire de la littérature là-dessus ku nekk na jàpp que ne il est de tous les Sénégalais il est également en fait de de de, de tous les croyants. Mm-hmm. ça c'est important et c'était important à relever. et c'était important aussi. et les non-croyants également. Mm-hmm. <laughs> aujourd'hui bu ko boo bu ko mënoon sax xam naa ne dina dem seeti peut-être euh, ñi nga xam ne c'est des non-croyants comme ay Pangol bu fekkoon ne Pangol am nañu un représentant. Mm-hmm. certainement dina leen dina leen seeti ne leen man maa ngi je suis votre président. parce que c'est engagé à être le le président de tous les Sénégalais. sans exception loolu vraiment maa ko ci rafetlu di ko ci félicité. Mm-hmm. ban lecture Mame Birame Wathie ngay amal euh, ci boobu la ñu gis quand même taalibe euh, bu mat sëkk ak yar boo xamante ni Awa Diop Ndiaye mi ngi koy wax léegi euh, fu ñu doon gis le président Macky Sall doon bañ a simi dàllam wala sax souvent bu simee dàllam day des ay kawas moom Bassirou Diomaye Diakhar Faye le président de la République sollu sax kawas ay tànku neen la def aussi wane yar bu mat sëkk boo xamante ni ñu bëri da leen gën a en tout cas dañ gën a fier am président bu mel noonu. waaw xam nga euh, souvent ñun euh, euh, surtout ci jamono ji dañuy comparer dañuy bàyyi xel trop trop trop ci Macky Sall li mu daan def de sorte que bu keneen ñëwee def loo xamante ne nii moo lu normal daanaka ñëpp def ko événement jàpp naa ne président Macky Sall. comparé ko ak Bassirou Diomaye Faye lu <laughs> nouveau président day day day day jafe mhm. euh, déjà buñ toogee di xalaat naan dina fa dem du fa dem euh, ñu bëri ñi jàppoon ne euh, du fa dem wala di doon ko taxé de salafis jàpp naa ne ñooñu ñoo doon toog di xaar mu bañ fa dem mhm. ba ñu gën am lu ñu wax mais li nga xamante ne nii moo xew nii pour man ça rentre le cadre normal des choses euh, Touba ak euh, Tiwaawan ak yeneen euh, këru diine yëpp dafa am lu ñuy représenter Sénégal am ñu bëri ñoo xamante ne nii kër yooyu la ñu jox bopp mhm. donc pour man boo nekkee président bu bees jël say nouvelle fonction c'est tout à fait normal sénégalais yi dinañu xaar ci yow nga def déplacement yooyu pour effectivement dem seeti kilifa yi nga xamante ni ñoo jiite kër yooyu. Mhm. donc li nga xamante ni moo ci daan am xëy na ak taawu Ablaye Wade mooy que euh, démarche bi du sincère trop day politique day lalu ci ginnaawam. effectivement euh, donc Macky Sall bu mu ñëwee jéem na ko changé dans un premier temps commencé na d'abord par taxer les les les kilifa diine de citoyen ordinaire bi mu demee ba nga xamante ne nii xam na ne citoyen ordinaire boobu mu leen doon taxé moom euh, euh, mënul jàll ci la commencé effectivement di changer nu muy doxee te ci changement doxalinam boobu taxul mu def comme effectivement euh, li ñuy xaar ci koo xamante ne nii xëy na yaa ngi dugg ci kër kilifa diine yooyu ci wàllu comportement yaa ngi koy wax ay kawas ak même dàllam yooyu nga xamante ne nii sol na ko fa vidéo yi euh, ñu bëri ñu ngi koy tegaat mm-hmm. ngay gis ñu ne ko dañ euh, ñu naan ko comme si dañ naan ko summi sa maraaki si muy lànk ne du ko du ko summi mm-hmm. donc pour man loolu mu defoon moo nekkul loon yoon li Bassirou jomaay fay mooy def mooy yoon parce que soo demee euh, Touba foofu nga xamante ni def na fa tànku neen daanaka ña tànku neen la ñuy def donc deful loo xamante ni lu extraordinaire la mm-hmm. Macky kay moo ñëwoon def loo xamante ni tegu ko fen lu extraordinaire donc koo xamante ne nii day corriger yooyu yëpp dañuy jàpp ne rek ça participe ci changement bi nga xamante ne nii ñoom euh, promettroon nañu ko parce que Sénégal la fi ko Macky Sall bàyyi yàq yàq yi nga xamante nii def na ko fi il le euh, ñu am ku mel ne président Bassirou Diomaye nga xamante ne nii dina tey dina am yar pour mën a quelque part réparer dégâts yooyu yëpp nga xamante ne nii Macky Sall def na ko fi te bi ci gën a gën a gën a gën a fës bokk ci diviser bi nga xamante nii diviser woon na ko sénégalais yi. ñuy jaar nii ñuy jaar na euh, ay affaire de xeet loo xamante ne nii daanaka Sénégal kenn mosu koo euh, kenn mosu koo def problème commencé di susciter ay débat ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne nii jàpp naa ne ñoo demoon ba euh, quelque part garaaw garaaw boo xamante ne nii nit bu ñëwee def lu normal rek dañ koy jàppee événement. Mm-hmm. <laughs> cette fois-ci est-ce que euh, ñu def euh, dernier tour de table euh, tëj bi sujets est-ce que dinañ pare ci bi les parce que aussi